képp ku alquran di yitteem war na ko jàng muy matn al imam al jazari rahmatullahi alayh al imam al jazari wala al imam ibn al jazari turam dëgg mooy Muhammad doomi Muhammad doomi Muhammad doomu Ali doomi Yusuf Aljazari buñ ne Aljazari ñu ngi junju jaziratu bnu Umar ca bilaad al mashriq ci bi jamono jazira boobu mi ci dëkk bi ñoo wax Turki waaye moom ma nga juddoo Dimashq ca Sham Dimashq tey mooy capitalu dëkk bu ñoo tuddee Syrie ngi juddu guddi samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor atum juróom ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn gannaaw gàddaay yonantu sallallahu alayhi wa fa la màggee fa la mokkale alquran booba ataman ci fukk ak ñeent ci at mu jàng ilmul qiraat xam-xamu njànginu alquran laxas jëm ci dëkk yu faccantikoo ngir wut xam-xam na misra dem na xijaaz dem na basra jàng na xadiis jàng na fiq jàng na usul jàng na maani jàng bayaan ci sëriñ yu tàqalikoo alimaam ibnu kasir abulfida ismail ibnu kahir ijaasal na ko ci ifta ak keneen ku dut moom ci sëriñi jamonoom mu toogit lu yàgg di jàngale waaye di jàngal jàngalekat yi wax nañ ne ca aljaamia al amawi ba nekk ca dimashq yàgg na fa toog di jàngale kilifa yu barit it génnee ci daaram ci la nekk ba ni moo faatoo ca Shiraz yoor yooru ajjuma juróomi fan ci weeru gàmmu atum juróom ñetti téeméer ak fanweer ak ñett gannaaw gàddaay yonantu sallallahu alayhi ko ci sos fekk booba dundam toll na ci juróom ñett fukk ak ñaar bàyyi na it ay taalif yu bare yal nañu ko yàlla fayal yow eh, daan nañ ko dàkkantale abul xeyr laqabam nag mooy Shamsuddin mu bokkoon ci wàllu fiq ci ngiru al imam Muhammad bin Idris Shafii dana ko waasax ci biir njàngaleem nee na bismillahi irrahmani irrahim ma ngaa roy yàlla di ndax bismillahi irrahmani dikk na ne mbir mu am solo mu ne suñ ko tàmbalee wut ak mu dagg ci barke riwaaye ne buñ ko tàmbalee wut alhamdulillah maanaam buñ ko tàmbalewut ak turu yàlla rek xadis ja mën nañ ko jëfandikoo ndax dëkk na ci riwaayaat yu bari yoo xam ne bu ca nekk daa dëgëral morom ma bismillahi arrahmani arrahim nee na alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyihi wa mustafaahu muhammadin wa aalihi wa sahbihi wa muqri'i alqur'aani ma'a muhibbihi ana alhamdulillah mboolem xeeti sant yi yàlla la ñeel waaw ah, wax ju bari dana dikk ci lan mooy sant ndax mooy madax wala mooy hana wala mooy shukur am na ñu ne xamd làmmeñ a koy def shukur cër koy def ndax i'malu ala daawud shukran am na ñu ne shukur kila defal nga koy wax xamdu nag loola du ca chart bu dee madax te mooy sana ñu ne daa fekk mu nekk jëf joo xam ne borom coobare la ko defee ñeel la nga tagg ko walla sax danga ko tagg rek parce que dafa am numu mu mel moo xam taaram la moo xam tabeem la moo xam njàmbaaram la xam xamd nag dafa làmboo yépp te sax romb na yooyu yëpp ndax shukr dinga wax nit shukran parce que dafa am lu mu def nga sant ko waaye taxut sax nga bëgg ko bu dee cantu xamd nag dafa ànd ak cofeel ànd ak màggal sant nag kuñ ko mën a def rek yàlla lañ ko def ah bu ñu santee yàlla moo ko yelloo bu ñu santee mbindeef la ñu sant ko yàlla kon yàlla moom cant ga nee na wa sallallahu yal na yàlla wàccee salaatoom ala nabiyi ci yonantoom bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam salaatu mooy ñaan ci luxa ndax yàlla moo wax yonentu wa salli alayhim waaw da nga ñaanal jullit yi ndax sa ñaan dana tax ñu dal dana tax ñu dal inna salawatik wala inna salatak sakanun lahum waaw sakanun lahum waaw waaye bu fekkee nag salaatu bu jógee ci yàlla la dañu ne mooy yërmande mais salaatu bu jógee ci yàlla bu jëmee ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dafay nekk à la fois yërmande dafay nekk tagg ko yàlla di tagg ca almalawul ala dafay nekk kawel gu kawel turam ak tuddam wa rafaana laka dikrak dafay nekk màggal gu mu màggal mbiram ci àdduna ak ci àlaxira waaw borom xam-xam yi ñu ne salaatu bu jógee ci yàlla raxma la bu jógee ci malaaka bu bu malaaka yi defee salaatu ci yow ñu ngay ñaan yàlla baal la su fekkee nag dafa jógee ci doomu aadama yi dañoo toroxlu ci kanam yàlla di ñaanal yonantu sallallahu alayhi dañuy salaatu ci moom bu dee du ab yonantu nag danañ salaatu ci moom waaye mu topp ci yonent bi li ngay waxee allahuma salli ala sayidna muhammadin wa ali am na ñu ne sax mën nga salaatu ci kudul yonent ndax xadisu allahuma salli ala ali abi awfa wante boobu ñaan la te ñu ne soo ko defee it bu ko tàmm bu ko bamtu te nang ci jublu ñaan rek waaw li gën a wóor daal mooy boo jullee ci yonent nga tofal ca koo ca bëgg a tëfal gannaaw saxaaba yi gannaaw ñooñam waaw gannaaw saxaaba yi gannaaw ñooñam alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyi ah nabiyu boo ne nabiyu bil yaa i baax na boo ne nabiyu bil hamza ànd ak alif mamduud baax na ah, nabi rek la ko wolof di firee wala kuñ sol bokk wala kuñ sol bokk wala kuñ sol bokk am na ñu ne nabiyu mooy rasul ñu ne déedéet am na wuute ñu ne nabiyu mooy koo xam ne sama borom tabaraka wa taala daf ko yónni waaye ci ñu gëm ba noppi la ko yónni mu am lum leen di leeral ci diine bu dee rasul mooy koo xam ne yónni na ko mais ci ay la ko yónni ñu ne nabiyu mooy ku ñëw pour mottali shariab yonantu bu ko jiitu bu dee rasul mooy ko indi shariatu bu bees ñu nabiyu mooy ku yàlla waxi te digalu ko mu jottali lim ko waxi rasul mooy ku waxyu ba pare ne ko jottali li ma la waxi balligh ma unzila ilayka min rabbi bu dee loolu la rasul nabi la bépp rasul nabi la waaye bépp nabi mën na bañ nekk rasul maanaam kuñ ne rasul la rekk nabi la waaye ab yonentu dana nekk nabi te du nekk te du nekk rasul ab yonentu dina nekk nabi te du nekk rasul waaw annabiu wala annabiyu naba mooy alxabar nabi mooy ki nga xam ne mi ngi xabaare te li muy xabaare ci yàlla la ko jële am na ñu ne déedéet nabi mina nabwa ji firi yëkkatiku ndax at nabi dara jaam dafa yëkkatiku ci kaw mi def yëpp dara jaam dafa yëkkatiku ku yàlla yootal ku yàlla yootal fa awxaa ila abdihi ma awxaa waaw ala nabiyihi wa mustafaahu na yàlla julli ci yonantum bi ki nga ne moom la moom mooy tànneefam wa mustafaahu ndax yonentu sallallahu alayhi wa moom la yàlla tànn ci mbindeef yépp waaw yonentu wax na ne maay sangu doomu aadama yi te puugare taxut waaw bu puugare taxoon mu wax lu ëpp loolu walla sax lu loolu mooy sama puugare ndax bu ma dee seen sang moy mooy maa ngi ak yéen te nekk ak yàlla mooy puugare te bu ma nekk ak yàlla du ma nekk sang abd laay doon wala faxar waaw xadis ci buxaari ak muslim dikk na sax ci saxiix muslim mu ne yàlla tànn na kinaanatu ci doom ismaila yi tànn quraysh ci kinaanatu tànn banu hashim ci Quraysh tànn ma ci Banu Hashim kon nag man tànneef laa bu jógee ci tànneef yu jógee ci tànneef fa ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaarin sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa mu mel bi mu ne wa mustafaahu da ngay laajte kan la bëgg a wa mu ne la mu ah sallallahu wa sallam mooy turam bu ko defee muy bëdal ci nabi wala muy atfu bayaan ci nabi wala ci mustafaahu muhammadin waaw tur la woo xam ne arab ah, daanuñ ko dégg daanuñ ko dégg moo tax bi ko Abdul Muttalib tuddee Muhammad te Muhammad alamun manqulun min ismi maf'ulin mud eh, min ismi maf'ulin mudaaf waaw min at-tahmid maanaam koo xam ne dañ koy sant di ko sant di ko sant di ko sant cant gu amul dayo wala koo xam ne ay jikkoom dafa santu santu santu santu gu amul dayo waaw xoolal loolu ba ñu laajee maamam ne ko yow say baay xamuñu tur bi mu ne mu ne dama dama bëgg dama yaakaar ñu sant ko ci kaw suuf sant ko asamaan yàlla dëggal na yaakaaram waaw waaw na yaakaaram sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa alihi ak ay ñoñom yal yàlla julli ci yonent ndax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farata la am na ñu ne benn yoon la nekk farata ci sa dund yow jullit bi ndax sallu alayhi ndigal la am na ñu ne déedéet saa yoo déggee ñu julli ñu tudd ko rekk farata la nga julli ci moom xam nga yonentu sax wax na ne ki gën a eh, ne ki nay mooy ki ki ki ma tudd fa moom te julliwul ci man sallallahu alayhi sallam te julliwul ci man sallallahu alayhi wa ndax naye ngi yem ci xañ yiw sa bopp ndax boo jullee ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon am ñu ne bu njëkk bi moo war waaye ya ca topp yëpp yuñ sopp la rawatina nag soo déggee ñu tudd ko alayhi salaatu wassalaam waali yaak ñoñom ñoñom ci wàllu atte ne diw mënee su ko jox sarax mooy mu'minu bani hachim ñi ko gëm yëpp te bokk ak moom hachim ñu ne ak muttalib it ñu moom muttalib frère hachim la bu dee ci wàllu ñaan nag boo ne wa alihi jullit yëpp dañuy dugg jullit yëpp dañuy dugg wa alihi ak ñoñam wa saxbi ismu jamu la li saaxib bi maana saxaabi ak ay àndandoo yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy képp ku dajeeg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa gëm ko te ca waaw bul wax képp ko gis de danga naan képp ku dajeeg ndax boo ne képp ko gis silmaxa yi dajeeg moom nag ndax am nañu dajeeg yonant sallallahu alayhi wa te seen gisu biti dafa sëgg bu mel ni Seydina Abdullahi ibn ummi maktuma ci saxaaba yonent yi gën a mag la te te te gisu bitéem mosul gis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa alihi wa sahbihi hmm? maa muhibbihi muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri il qur'ani maa muhibbihi wa alihi ak ñooñam wa sahbihi ak i saxaabaam wa muqri il qur'ani ak aji jàngale al qur'an waaw képp koo xam ne rek yaa ngi jàngal nit ñi al qur'an yal na yàlla sotti ci yow salaatu ak salaam ma muhibbihi ànd ak aji soppam ànd aji soppam mu mën a dellu ci Muhammad mu mën a dellu ci alquran mu mën a dellu ci muqriul quran waa képp ku sopp yonantu rek sallallahu alayhi wa sallam na salaatu ak salaam dotteeku ci sa kaw képp ku sopp alquran yàlla na salaatu salaam dotteeku ci sa kaw képp ku sopp kuy jàngale salaatu ak salaam yàlla na sotteeku ci sa kaw xam naa ñu fi ba suba ak jàmm biidnillahi tabaraka wa taala wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi xaqa wa miqdaarihi al